jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontante ak mbégte comme niñ la koy defalee saa su ne tey ñu ngi fii ci géejawaay waaye yaakaar naa fii Cité Comico la de wala ëpp na fa. aseg naa ñu seet si fi xale bi nga xamante ne mooy Pape Ndoye Pape Ndoye nag bu ñu ko waxee ak raglos vraiment mu bëri ci lu mu def ci làmb bu ngeen xoolee ñaari journée yi mujj bëre Sadio Ibomar gis ngeen xale bi lu mu wonee ci wàllu bëri loolu yëpp dinañ ci waxtaan ak moom. gis nañ mbër yu bari dañuy génn def sorte laaj mbër mu ne waaye laaj laajuñu Pape Ndoye lan moo tax loolu yëpp dinañ ci waxtaan ak moom dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet di su ko defee ñëwee waxtaan bi mbër maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay di àdduna yëpp waaw di nuyu NGB bi waa ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu nuyu waa naa bi may yeewoo sant sama yaay sama papa suñu waa kër ñëpp. waaw dëkkandoo yi nga xamante ne ñoom lañ dëkkal di dëkk di leen déranger waaw ñu ngi jéggalu ñëpp di ñaan ci dëkk bi jàmm di ñaan yàlla defal ñu jàmm waaw di ñaan tabaski bi ñu ñoom yàlla yóbbu ñu seeg jàmm ak salaam tabaski si jàmm mu jàll si jàmm incha allah rabbi di ñaanal ñëpp daal yàlla nañ yàlla defal jàmm daal waaw yàlla na fi jàmm sax ci réew mi incha allah. ci lan nga nekk waaw maa ngi nii di sant yàlla rek nekk samay entraînement toog sama ruq waaw jàpp sama ñàmbur waaw di xaar làmb. gars yi yi ñu may woo ñu ngi may woo ñu ngi may woo bu baax wax dëgg yàlla mais xëy na adversaire yi ñu may wax waaw ñooñu moom xool naa leneen quoi. bëggoo bëri ñooñu. déedéet. dama leen a raw ci waaw foofu foofu sax wax dëgg yàlla de nag képp ku nekk ci làmb ji di bëre rek. yaa ngi xool noo tege ay tànki kanam man moom wax dëgg yàlla am na yenn adversaire yoo xamante ni moom bëreeg ñoom moom wax dëgg yàlla toog bañ a bokk ci riir bi sax moom a ko gënal. non c'est que ñooñu gu ñu quoi waaw yegsee ñu te man damaa bëgg a yéeg waaw man ci ci sama kanam laay xool wax dëgg yàlla waaw ay mbër lañ ñu ngi def seen ay preuve nag di ñëw waaw. ay ñan lañ la doon proposé. nañ góorgóorlu rek bari na bari na ay adversaires bari yoo xamante ni proposé nañ ma leen wax dëgg yàlla mais ñooñu moom xool naa leneen quoi. xanaa amuñu tur. non am nañ tur sax mais ñenn ñi am nañ combat sax. ñenn hmm. ñi am nañ combat. Hmm. Mhm. Hmm. waaw mais man daal maa xool sama kanam daal di xool am na samay ñi fi nekk di dëgg xam nañ samay naataangoo xam nañ ñi ma war a daseel. Hmm. waaw xam nañ ñi nga xamante ne ñooñu ñooy samay naataangoo nañ ma jox ñooñu ñu bëre bu ñu bëggee ba bëre. man ba ñu ma bëre bëre mooy sama métier. Hmm. mais ci kaw nañ ko teg si yoon rek ñu jox ma ku ma war a bëreel. Hmm. ma bëre bu ñu ma ko joxul barki Serigne Fallou Mbacke jaral na ma toog bañ a bëre. waaw. da duggoon jàmm gën jël fa Abou Ndiassé daan ko duggaat biir jàmm gën jël fa taqe daan ko mais dafa mel ni Pape Ndoye parewul woon pour génn jàmm gën lan moo tax nga génn jàmm gën. non parce que su fekkee comme tey jii parewu ma woon pour génn fa parce que fa laa bëggoon nekk xuus fa xam nga jàpp sama adversaire yi fa nekk yëpp defaral leen bagage xam nga parce que man dama nekk ndaw nekk samay entraînement. pare pour jël sa li ma moom ci làmb chaque jour ma waxote nañ ñi bàyyuñ ci xel damaa pare pour jël sa li ma moom ci làmb waaw samay naataangoo rek lay yàqoo léeg-léeg mais képp koo xamante nii sama naataangoo nga ñu war a bëre barke sëñ Fallou Mbacke du yàqoo ci man. ba am bari na. ñaan naa fa ay adversaire bari na non foofu instant bii nii comme kii mi fa moom war nañoo mën a war nañoo mën a bëri lu neex Tidiane Faye. waaw le professeur war na dama bëgg mu jàngal ma. waaw la professeur champion la ndaanaan la wax dëgg yàlla te képp ku nekk ci làmb ji nekk di bëre rek bëgg ngaa jàppanteeg moom ndax lim def si làmb waaw lim marke ci làmb ba tey ji kenn mënu koo fàtte. waaw moo tax man genre mbër yooyu noonu bëgg naa bëreeg ñoom ko waaw ndax ndaanaan la te mën naa daan ku ne nag waaw gis nga combat démbam bi. moo kewel gis nga ko démb ñëpp yaakaaroon nañu booy bi da koy jàpp génne ko stade bi mais gis nga ni mu ni digganteem ak Keweul demee jëlu du am doo ko mën a daan soo paree naan cest à man sama da maa mos a gis ma bëree noonu samay combat mos ngaa gis ma taxaw ci géew gi di lewtoo jëmale fajar wala ma taxaw di lewtoo jëmale suba man kay day jeex moom barke sëñ Touba day jeex tàkk amul xaar bu arbitre ne për wàcce loxoom rek maa ngi sa kaw waaw loolu tax Tidiane Faye. waaw Tidiane Faye. le professeur dama bëgg mu jàngal. naan naan a bëre. dama bëgg mu jàngal ma bëre. dama bëgg mu jàngal ma bëre Tidiane Faye dama bëgg nga jàngal ma bëre. Hmm. waaw. mais Pape Ndoye lan mooy sa problème. ba Pape ndooy bu bëree. lépp lu amateur di soxla dañ koy gis ci Pape Ndoye mais ñu bari ci làmb nee nañ Pape Ndoye mbooloo mi ko war di topp ci làmb du ko topp ci làmb lan moo tax loolu. waaw xam nga làmb moom moo nekk loo xamante ni. chaque jour rek ak ni muy demee waaw chaque jour ak ni muy demee gis nga sama combat ak Abou Ndiassé li stade bi ni mu mel waaw dañ koo duy ba mu fees dell waaw mais léeg-léeg am na làmb yoo xamante ne nii xam nga yi dañuy ñëw tas. waaw man samay supporters dañuy dugg si stade bi au ko que ñu dajaloo doon benn bloc mais dañuy tas ñuy toog fii ñuy toog fii ñuy toog euh, ci amateurs yi. ñuy tasaaroo quoi waaw boo seetloo sax man su ma jógee làmb léeg-léeg dama leen koy wax dama leen man daal su ma soñoon su ngeen duggee stade ngeen dajaloo def benn dànk dajaloo fenn nit ñi danañ gis. ñëpp waaw parce que bu ngeen ñëwee rek ku ci nekk da ngay dajaloo ñuy yor seen ay kaasu café fii ñuy toog fii nice waaw dañ may gunge dañ may topp mais man leen su ma soñoon daal ñuy dajaloo di def benn dànk moo may gënal waaw. loolu est-ce que taxul promoteur yi ñu baree bari pour démarrer combat. Pape Ndoye day doon problème ci ñoom. non man sama combat ñu ngi koy démarrer chaque jour chaque jour boo xoolee rek am na samay combat yu bari yoo xamante ni demoon na ba taxaw mais après li koy yàq du doon lenn lu dul loo xamante ni ci adversaire yi la xam nga. waa ay yenn nit yoo xamante ne nii xam nga àdduna moom dafa nekk loo xamante ne nii dafa doy waar. Hmm. da ngay gis léeg-léeg ñoo xamante dañ lay jege lool. mais dañuy jéem a def yoo xamante ne xam nga dañuy yaakaar ne sax xamoo fekk xam nga lépp. waaw mais dangay ngay toog sa ruq rek jàpp sa ñaambur. xam nga ñun mooy li may wax chaque jour rek ñun dañoo yar ci loo xamante ne nii ñun lu ñu war a am lu ñu war a am la lu ñu warul am waruñu ko am. waaw man yaakaaruma ci benn nit walla may taxaw ci benn nit naan la defal ma li wala defal ma li ndaw laa damay entraîné dama gëm sama bopp heure bu làmb ñëwee dinañ gis damay def samay preuve. bu ñëwul tamit damay xamante ne heure ñëw moo jotagul rek waaw maa ngi toog bi lekk di naan di sant yàlla waaw. soq daa bëre euh, franc franc daan ko ñu bari ne soq ak Pape Ndoye làmb la man ne déedéet loolu mënul nekk làmb ndax soq ak Pape Ndoye est-ce que làmb boole na. non si làmb boole nañu parce que soq defu fi ci làmb loo xamante ne nii defuma ko. waaw te booy seet sax tey su ñàkk bañ a bëri doon am man maa war a bañ soq waaw ndax soq limal ay defetam sox ñaata defet la am. Ah, non bari na. bari na bari na. ah man doomu daangu daan na ko. <laughs> Euh, booy boobu Ramdaan daan na ko. ah ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen daan nañ ko xam nga. mu nekk combat boo xamante ne nii day am combat yoo xamante ni day ñor mais. man est bi day ñor est-ce que yow bëgg nga soq est-ce du lu nit ñi naan combat Pape ak soq jaadu na rek nga ne combat boobu. non du li nit ñi di wax jaadu na man maa gën a xam ni jaadu ci si man sox sax maa ko mën. lu sox maa ko mën. foo wóolu xam sama bopp wóolu sama bopp. xam li may entraîné xam li nekk ci man xam samay capacité ku dul sox barke Serigne falu Mbacke maa ko mën waaw Pam dooy man xam naa ne samay moroom seen fit day maas ci man man xam naa loolu bu baax a baax. dañ maa ragal. ñun ñooy say morom ñi nga jàpp ni war ngaa mën a laal samay morom bon bari nañ ñu ngi fi. man de bëgg naa xam say bare bare bare bare wiiri nañ. <laughs> dañ waaw dañuy wiiri. balaal loo xamante ni nii xam nga tey jii gis nga. at mu wiiri balaal loo xamante ni waruñu ko laal. <laughs> gis nga. boobu Coly ko moom. <laughs> non kooku kooku moom ñi ngi waxaale sax di waxaale ci stade bi quoi am na côté boo xamante ni nii faaw SNC dolli fa suuf parce que non faaw ñu dolli fa suuf parce que dem naa fa keroog mais pax la def. bu ko noonu. <laughs> léeg-léeg. ci làmb juum daan. lépp Fass danger la. cuuj bu yeewoo Fass sax moytul. te nga xamante ni ndaanaan la. barke seen Touba. làmb moo mel noonu mooy li may wax chaque jour. naa tàngoo bari nañ ci làmb ji xam nga. bari nañ ci làmb yu trop te man dama man man ba ma dalee bëri ba tey comme ni booy di def nii jël paa wala jël ay ku nekk retraite hmm. wala koo xamante ne nii combat bi day taxaw ñëpp ni maa ko man man mosuma am loolu ci làmb man ma dalee bëri ba tey samay morom rek laay bëreel samay morom kese kese kese kese laay bëreel ñoo xamante ne ñoo ma mag wala ñoo maase wala ñoo xamante ne ba ñuy kese laa nekk di bëreel ci làmb hmm. laalagu ma ci làmb loo xamante ni dañ naan ah Pape Ndoye moo mën kii ku ko gis nga génneel ma ko mais ku li fay actuellement ku la ko doon jox bare nga ak cent millions soxlawu ma ko. non c'est parce que du man ak moom instant bi wax dëgg yàlla ak cent millions barke Seydina Mohamed soxlawu ma ko du man ak moom. Ah, non du man ak moom. instant bii nii day rangiwaat ay dem rangiwaat ay ñoom boo yaay foofu na jéem a jëm bëreeg ñoom ay ñoom baaba jaxala ngi foofu xam nga boo yooyu noonu na jéem a leen bëreeg boo yooyu ay ñoom bébé bismi ñooñu ñëw ak moom man kii la mais man ak moom cent millions barki Seydina Mohamed du ma bëree ak moom. parce que na dem rangiwaat man làmb dama fi nekk nekkuma fi pour di bëree di bëree di bëree comme nii rek man dama nekk si làmb ji pour bëree pour dem sama yoon yegg fi gars yi yegg laa bëgg a te foofu li ma fay yeggale mooy daan samay moroom ñoom laa soxla pour bëreeg ñoom pour daan su ma mënul bëreeg samay moroom damay toog jàpp sama ñaambur maa ngi samay business maa ngi ci dama ma war a nekk di sant yàlla. mais avant muy bëre Ada Fass ku la ko joxoon nga jël. instant boobu suñu combat demoon na presque ba taxawoon mais après rek xam nga rek lu waral lu yàlla dogalul rek. waaw lu warul am rek moom man damay nangu ndogal suñu combat demoon na ba taxaw ba ma war a jot avance ak yëpp mais après rek xam nga lu warul am rek mooy li may wax chaque jour rek du am. waaw lu warul am du am ñu koy sant yàlla bu baax a baax a baax. Ada Fass kon léegi Ada Fass daan na ko. yow doo bëre. non daan nañ ko. jël bu rëy. jël dal la ne lañ ko daan jël boo xamante ne amul mbot stade bi demee côté kooku day dem rayuwaat wax dëgg yàlla day dem rampe waat waaw. wax dëgg yàlla waaw man moom instant bii nii sama bët xool na leneen mooy li may wax rek Pape dooy yàkkamtiwul man yàkkamtiwuma chaque jour li ma mënul am su ma ko li ma mënul li ma teg sama bët ci làmb su ma ko mënul am damay xaar. barke El Hadj Fallou. mais di nga bëriwaat ci saison bu ko yàlla dogalee. promoteurs yi actuellement nii am na ñoo jot a sore. jour promoteurs yi ñu ngi may woo di ma wax ay combat dégg li ma la wax wax nañ ma combat yu yoo xamante ne bu ma ko nangoon heure bi bëri naa wala heure bi ñu ngi naan semaine bii la Pape Ndoye di bëre barke Seexul Xaddim te wax dëgg yàlla fay nañ ma ci xaalis bu weex tàll mais soxlawuma loolu. parce que ñooñu noonu su ma leen jëlee yow sax dinaa la wax sama combat di taxaw na kon nga ne ma ah nga jël kooku. Hmm. xam nga ne tey jii boo nekkee si làmb dem ñu lay wax ay Pape Ndoye Thiatou Daouda Fall wala ñuy wax ay Pape Ndoye Bulldozer wala Pape Ndoye ak keneen xam nga loolu ñëpp ay mbër lañ ay ndaanaan lañ ay champion lañ mais tamit xam nga man xool naa leneen quoi. comme proposé nañ ma combat yooyu yëpp barke Seydina Mohamed yëpp ak fay ma li ma bëgg a fayee ko ñu fay ma ko mais man leen man loolu su taxum nekk ci làmb ji. bu baax la ci. non non am nga yaraax la mu jee bëreel daan ko. xam nga làmb làmb làmb dafa am na muy doxe mooy li ma lay wax rek. làmb dafa am noo xamante ni noonu lay doxee. xëy na ñoom loolu lañ bëgg mais man li ma bëgg tamit am naa droit wax ko. waa ñoom man man léeg bëgg-bëgg nit ki du ma ko def de sama bëgg-bëgg laay xool. voilà man xooluma ay bëgg-bëggu promoteur. man li ma arrangé laay xool. man nekkaluma fi benn promoteur. neexaluma benn promoteur. topp ma ci ginnaaw kenn. ma nekk ci làmb ji di entraîner di lekk di naan nekk sama kër di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw ku may làmb booleel ci ñi ma bëgg ñooñu laay bëreel force. te damay bëree ñoom incha allahu rabbi. buñ bañee bëree man ma toog xaar amul problème. te teew dinaa bëree ci defet da defet a gën a metti te da ngay toog si defet du dara da ngay toog cons li nga bëgg te defet a gën a metti hmm. waaw léegi boo jógee ci defet nekk ci sa dynamique looy yàkkamti. waaw waroon koo ñetteel am nga. yàlla def yàlla def ci li gën yàlla def ni warul am. waaw ñun ay jaam la ñoo xamante ne dañu nangu ndogal nag. waaw ñu nangu ndogal bu dara ñëwee nii suñu kaw dañuy xamante ni lii gënu suñu ndax man su ma jullee ba pare sax su may ñaan damay ñaan yàlla ni li may ñaan yàlla na doon lu gën si man wax dëgg yàlla loolu laay ñaan. moo tax bu sama dara échappé wala sama dara amul rek dama koy sant suñu borom dem toog hmm. waa maa lay jaajëfal bu baax xam naa ne vraiment ñëw naa ci kër gi yëggal naa la. mais lay jaajëfal. waaw maa ngi lay delloo jaajëfal di sant sama yaay ak sama papa bu baax a baax baax hmm. di sant uh, axlu làmb yëpp. waaw di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp. Hmm. waaw di ñaan li ma waxoon rek di ñaan yi nga xamante ne nii dañuy jàppale suñu amee komba seen loxo du mos a jóg si ñun waaw ku ci mel ni soxna Xayta Seck da siy jàpp maître Ba l'avocat de la jeunesse Pape Mama Fall ama Gris 2 Lac ñaanal Gris ñoom ñëpp yàlla yàlla may combat ñun ñëpp ñu am komba waaw di ñaan daal ñëpp am jàmm waaw MG euh, Papa njaay Papa Ndiaye sama doomu ndey démb fi la yendu ñu yendu man ak moom wax dëgg yàlla mu nekk nit ku baax koo xamante ne nii lu ma nekk mu nekk ci lu ma nekkul sax mu nekkal ma si waaw papa Ndiaye maa ngi koy ñaanal di ñaanal jabaram ak njabootam yëpp maa ngi koy ñaanal daal yàlla na ko yàlla defal jàmm papa Ndiaye yow yaa moom loolu ak madam waaw yàlla na leen yàlla defal jàmm bu baax a baax a baax di ñaanal sama raq yeeg ñëpp anta ba maane xama lii ko ñëpp daal maa ngi leen di jaajëfal di leen wax daal yàlla na fi jàmm sax di wax ñiy nekk di wax di wax di wax Pam Ndoye day def lii Pam Ndoye di def lii musuma bëre Pam Ndoye musul bëre làmb joo xamante ne nii stade bi feesul rafetul. bu amee ngeen wax ma ko dafa am mosul am ku ci nekk nag dangay ngay sa ruq rek jàpp sa jenn yu sew rek di ko kebet kebet kebet kebet kebet di wax. Pam Ndoy li muy bëree stade nii wala nangam ak nangam mais bu ko tëgg voilà. man yàlla laa gëm damay julli damay wóor yaakaaruma ci kenn lu ma war a lekk dama koy lekk lu ma warul lekk dama ko lekk maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. dunguruwuma kenn yaakaaruma ci kenn sama doole ji laa yaakaar ak yàlla ak yonent bi ak samay ñaanu waajur yaakaaruma ci nit ku yàlla bind ku yàlla bind di kebetu naan maanaam kebetu bi kebetu bi maanaam nan nañ ko mën a waxee kebetu bi mooy comme par exemple da ngay dégg ñu naan la xam nga rek yow xam nga affaire yi li may li may bëgg a wax xam nga ko wax wax bëgg dara de <laughs> non lamb dafa bari dafa bari dafa bari wax bu sew mooy li ma la wax sànq rek. ni la tay jii dangay dëkk ak nit nii def moom nii ñoo xamante ne buñ la jegee dañ lay siiñ naan la yow la yow la yow la yow la barki yorante yàlla Muhammad xam naa leen bu baax a baax a baax buñ la jegee naan la nii ñenn ñi dañuy xam naa leen. te ñu teggiwul tànk dinaa tudd seen ay dinaa mës tudd seen ay tur. waa incha allahu rabi. da bokk écurie wala ay bokkuñu écurie dañoo bokk dëkkuwaay rek. dañoo bokk dëkkuwaay ñaari tali. duñ ay mbër mais damay artu rek. nañ ceene seen ceene bàyyi ma ma ceene sama ceene man jotewuma kenn dara mosuma tooñ kenn mosuma wax kenn dara dama nekk ci làmb di daan sama doole. yaa may dégg. Hmm. nekk ndaw yaakaaruma ci kenn nañ yem seen yem bàyyi ma mag ceene sama ceene ñu bàyyi wax ji bàyyi Pape Ndoye bu ñu sañoon saa yu Pape bëree day daanu waaye loolu yàlla dogalu ko. Hmm. yàlla li mu dogal ci man mooy may bëre di daan te loolu mooy am incha allah rabbi saay mu bëree damay jàpp damay daan bu soobee yàlla teguma ko fenn nag. damay julli di ko ñaan sama yaay di ma ko ñaanal sama papa di ma ko ñaanal. Hmm. man ñoo may mere mu saf ma. sama yaay ak ak samay mag. à part ñooñu keneen ku ma mere barki Seydina Mohamed buñ dottaree ma rendi la. Hmm. nañ leen boole xol yi ñu boole xol yi ñu ñu ñu ànd. àdduna amul solo fii lii yëpp day jeex. ay lam seen combat beneen beneen Pape Ndoye chaque jour Pape beneen ngay gis. mais nañ bàyyi wax ji ñu bàyyi wax ji doomu jàmbur laa nañ bàyyi wax ji. am na solo mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax dégg ngeen Pape Ndoye li wax nee na ñu bàyyi wax ji. waaye nag wolof daf na ku boot bukki xaj mbooloo pam doy jóg na dem mbokki di leen jaajëfal bu baax jox dig daje ba incha allah ci beneen xew-xew laa bu jërë ngeen jëf